Sénégal tamit comme comme nag dañuy dañuy dañuy siwal man benn affaire moo ma xaw a jaaxal gis naa Abdourahmane Diouf dikk si. te mm. daaw effectivement Abdourahmane Diouf bi moo wax ci télé yi. Mm-hmm. wax na TFM wax na Sen TV wax dëgg fa yàlla sanu baay bii di Abdou Ndéné sàll moo jàkkaarloo nag moom ca Sen TV. un débat d'ailleurs boo xam ni seetaan nañu ko ci jamono. lii nu dal nii nu kaa wax Abdourahmane Diouf wax na ko ca jamono jamono mm-hmm. boobu. Mm-hmm. Abdou Ndéné Sall lànk Abdou Ndéné Sall sunu baay boobu nu ngi kaa nuyu ba baax papa nu ngi laa nuyu moo ki nga xam ni moom la Momar Gueye joxoon projet bi bii di terre bi. Mm-hmm. on nous a présenté le projet gis nga ñoom ni ñu liiree nee nañu de la conception a waaw. na ñu bàyyi xel bu baax tubaab bi lu ñu wax. de la conception. ba fin ba. Momar Gueye. 40 ans en France ancien agent de Alstom. tubaab yi ne de la conception a kon am na ku xalaat. am na ku proposé. bu fekkee am na keneen tamit koo xam ni euh, parce que mos am kenn ku ma mos a woo ne ma projet bi projet am la depuis 1998 pas trop compris. Euh, xam naa peut-être 2008 la bëggoon wax peut-être mais il m'a dit ça. Euh, tur bi nag laa fàtte bu dee mën na ma woowaat. ah 70 630 08 08 mais l'initiateur du projet celui qui a proposé à que le Sénégal te bu si kanamee daanu ko déglu réew mi toll si nuy leeral si li nu mën a am. Mhm. parce que mënuñu nangu ñu continuer du ñu foowee jàppee ñu ay dof. Mhm. bu nu waxantee dëgg te yàlla tax mënuñu nguurab Sénégal lu ñu leen jiiñ ñu démentir te ñu dëkkee leen jiiñ liñ leen di jiiñ bëri na. nan waxante dëgg rek nun waxuñu est-ce que mën nañu chaque jour scandale parce que quand on gère dans l'opacité xam nga lan mooy gérer dans l'opacité mooy lépp dañu ko nëbb je donne un exemple. Euh, Koor Samb. yéen a ngi gis mbedd bi ñu waa gas fu ne. partout Dakar dafa mel ni village bu nu xottatee. gas bàyyi noonu dem gas bàyyi noonu dem mu jaaxal ma amul kenn ku ñuy wax li ñuy gas lii la amaana lu baax la ci ñun mais on nous on ne nous informe pas c'est-à-dire que on ne dit pas ñu ngi def lii pour lii mais après coup bu ci benn scandale amee état bi ñëw daal ne non non non du li ngeen foog. mais l'État mm-hmm. ne peut pas fonctionner comme ça c'est en amont. mais bu dee en aval toujours ngeen di ñëw pour pour nañu du loolu mais finalement ci dit la vérité. am na lu nguur gi wax sàmb waaye waaye baal ma rek cheikh bi boo ma wooy nii tam ci yaa nga xam ne maa ngi si antenne bi baal ma rek billaay baal ma rek dama la ko ñaan. émission bi nga waroon joxe numéro. waaw non xam nga boo gisee bu la joxee numéro xam ni yaa maa ngi ci antenne bi di wax kay baal ma pare rek nga baal ma rek kilifa bi ah, nabu sa nabu koor. waaw da ngay ñëw ci tontu. tontu tontu ah kay tontu bi. Abdou Abdou Karim euh, Fofana. moo wax ci Seneweb. Euh, comme je pense que le communiqué est partout euh, Sénégal nous souffrons nous souffrons nous souffrons. quand on parle de retard dans les prévisions du TER dette de plus de vingt cinq milliards sachant que sunu baay bi man Mansour Faye waxoon nañu mbirëb trente milliards yi ñu doon fay par weer entreprise boo xam ni nee nañu ñun senegal nee na moo ko moom. Mhm. tubaab yi nee nañu ñun moomuñu ko. léegi on va savoir qui dit la vérité. ah Abdou Karim Fofana mu ne. nee na SNCF nekk comme prestataire. doo ma ko liiral. Euh, liiral nga dem ci direct news je pense moom aussi moom la xëyee. moom la xëyee tey waaw. Euh, nee na l'article paru dans Figaro nekk de la résultante de la guéguerre entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante du TER dans le financement du TER le Sénégal a contribué à hauteur de cent trente milliards de francs CFA. Le financement français est de loin inférieur à celui des autres bailleurs BAD et BID. Euh, ce terre financé à minima par la France, qui n'en voulait pas, ne peut pas appartenir à la France. La terre n'appartient pas à l'État français ni à la France, mais bien au Sénégal. loolu la wax. waa affaire. parce que vraiment on est fatigué. Mhm. nous souffrons Mbayante yàlla na yàlla fay. waaw mu ngi mu ngi kii euh, direct news moom la tey et pas mal de journaux mami seetal Abdou Karim Fofana li mu wax. Mhm. nga liiral nu ko dimbali nu rek ah, euh, dinaa la wax léegi doom Abdou euh, état wu bu weddee ba pare. Mhm. ma wax la lu tubaab bi wax. tubaab bi dafa tontuwaat encore. ah dama lay wax rek lu mu wax déglu bu baax dama la ko mami Sam xool sax ma tegal ko nit ñi ñu déglu ko. Mhm. ñu xam lan la tubaab bi wax. déglu leen bu baax. Euh, toujours là. Si on revient au train lui-même, euh, il ressemble beaucoup au TER que nous connaissons ici en France. J'imagine que c'est pas un hasard. Est-ce que mu ngi noo dégg. Euh, non tuuti dindi dindi pour banque bi. dégguñu. voilà dindi pour banque bi super. Euh, de TER ici au Sénégal. ma ne. toujours là si on mhm. revient. Mayante yokkal li yow. il ressemble beaucoup au TER que nous connaissons ici en France. J'imagine que c'est pas un hasard. yéen a ngi dégg. absolument Maya vous waaye mënut a ne waaye mënut a ne. parce que coupe bi dafa faible. ma ne ma ne mu mënut a ne. woo xulil mënut a ne la ma wax. li ala a ne daanu ko dégg de. li ndaw si wax ak waa ji. ressemble beaucoup au TER que nous connaissons ici en France. Malheureusement, n'entend pas très bien. Est-ce que, n'entendez pas Est-ce que Dok Dior euh, ouais, bah, Tu m'envoies le lien, s'il te plaît. Li Mounutane. Mounutane. Mane Mounutane. Envoyez Coco en attendant ma lire Tu m'envoies le lien. Ah, ok, mami, ñëwal ci kii bi. Tontu bi. Euh, ndax nag euh, toujours ak sunu confrère wu ñoo apporté réponse bi euh, mu dans une enquête vendredi mhm. euh, journal français Figaro dafa bind mu ni société euh, de train express régional sénégalais mhm. mu est détenu à par la société nationale des chemins de fer français mooy SNCF ma la doon mhm. wax cinq article boo xam ne dafa soulever de vives polémiques mais ci Tivaouane bi nga xam ne foofu la passé week-end am mu ne kii ne mooy donc donc une information que le ministre et directeur général de la SNTR Abdou Ndéné Sall moom daf à démentir ok, donc Abdou Karim Fofana, euh, on parce que j'étais sur, euh, je sais pas, sur le bon article. Mm -hmm. Abdou Karim Fofana, monnaie le Sénégal est entièrement et exclusivement propriétaire du TER. Mhm. Voilà. Euh, li mu ci wax mooy. mu le mhm. Sénégal est prioritaire. entièrement et exclusivement du TER, contrairement à ce que certains voudraient faire passer comme rumeur. Mouni, à croire, cela signifie que le Sénégal est propriétaire de ses voies, Mm-hmm. moom moom raam yi moom moom également gaar yi D'accord. mu ni poursuivant le ministre du commerce d'indiquer que la SETER mm-hmm. mu mm ni -hmm. prestataire de l'État du Sénégal pour mm-hmm. l'exploitation et la maintenance du train express régional mm -hmm. tout comme la SNCF qui selon lui n'est pas un concessionnaire mais plutôt un prestataire. prestataire effectivement mu ne du concessionnaire prestataire la. Mhm. revenant ci rentabilité TER bi. Mhm. ministre du commerce dafa fàttali mu ne état bu Sénégal dafay chercher à travers ce projet euh, une rentabilité économique mais également une rentabilité sociale. Mhm. mu ne par contre. Euh, moom euh, Abdou Karim Fofana dafa yokk mu ni équilibre financier bi euh, devrait être atteint dans les trois prochaines années mais bon la précision mooy que ne réellement terre bi ça n'appartient pas à la France ça appartient au au Sénégal et que euh, euh, voilà tout simplement SNCF nañu jàpp ni euh, qui selon lui n'est pas un concessionnaire mais plutôt un prestataire prestataire na mooy koo xam ne danga nga ko jël di ko fay mu lay liggéey voilà mais nekkul concessionnaire comme ni ko article Figaro bi euh, mais ci ci tontu bi mu indi dégguma en aucun moment dégguma mu avancer sur des chiffres yoo xamante ne mën na leer ci bopp sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo leen di déglu. effectivement dans l'article paru sur CNews en Euh, dafa dafa dellu si. d'accord léegi tubaab bi nag paasal ñëw ñu ci <laughs> waaw tubaab bi dafa wax chiffre. Mhm. Mm-hmm. Mm-hmm. tubaab bi euh, il ressemble beaucoup au TER que nous connaissons ici en France j'imagine que c'est pas un hasard. Absolument, Maya, vous avez raison. Il projet de TER ici au Sénégal a été réalisé à on va dire, euh, par la conception jusqu'à la mise en œuvre. Et la société euh, de TER sénégalais est, euh, est détenue à 100% la <laughs> laa xawla wala xawta illa billahi ilahi al azim allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah seydina muhammadan wa abdu wa rasulullah sallallahu wa sallam ñaar moom bu nu waxee am na ku wax dëgg am na ku waxul dëgg limite léegi nag nous moi je suis triste mm. j'ose imaginer espérer que Sénégal moo wax dëgg j'espère kilifa bi wax na weddi tubaab bi mu ne. Mhm. mu ne. Euh,

génération euh, de trains. Ils sont même plus récents, plus perfectionnés que ceux qui circulent en France euh, sur le réseau TER. C'est donc le top du top du Made in France et le projet dans son ensemble. E euh... Mmh. Pas muñal muñal loo oh. ah, muñal àdduna daal coono rekk ah, ah, muñ mu jeex waaw muñal sekk nag wuyul ma sekk dangay muñ nag du dëgg eh, ma ay ca dafa mel ni sekk mënatul muñ de wala lan ngeen bëgg wax waaw mais dangay muñ ay kilifa yu wax mm-hmm. ñeneen démentir leen mm. détenu à 100 pour cent à moins que nous nous comprenions euh, mais ñun ñun ñun dafa metti ba pare ñu ne ñu bu leen wax. Hmm. léegi la chose c'est quoi moi moi je suis je suis heurté Pape Alé judiciaire dañ ko limité fu mu war a waxee ak war a wax ok mu cool ñeneen ñëpp ku jóg même chose. après démb ñu commencé di tas article quatre-vingt voilà ku fi samay trouble ku fi ki donc tey bu ñu ñëwee wax ne terre bi kat ah Sénégal li mu wax état Sénégal li mu wax du dëgg ñu ne la non yow li nga wax waroo ko wax waa bu doonee du dëgg du bu du dëgg nag waaye leen fu du jëm parce que opacité moo indi lii c'était pas un projet opportun et pertinant dans ce sens c'est la France. bu ñu fàttalikoo Nicolas Sarkozy Mami Sam mook ay ñoñam ba ñuy wax ak seen homme d'affaires yi dañ leen ne partez en Afrique en meute partez en meute meute bu ñu ko waxee mooy meute de chien mooy allez-y soyez agressif dem leen jëli seen business ca Afrique mais ça